commencé na dépendance Sénégal changé nga xool fii waaye politique tax na ba kenn ñemee tolloo sax wax dëgg mu bëgg li fi xew nag xew na yàlla na yàlla mu dem ñun sañoon chaque jour dañuy marche li fi xew nag mooy Sénégal li nit ñi di fàtte di wax élection yi élection yi foog ñu Awa Niang ñoo nekk président 30 moom mu ñëw wàññi mandat ne damay toog damay def léegi nag nee na day def ñu sañoon chaque jour ñu wane ko danañ a ànd ak yow mooy suñu président wu parti nag li nit ñi fàtte suñu candidat Benno Bokk Yaakaar bu ñu fi teg Amadou Ba yàlla na gañee yore Sénégal premier tour am ñu temps wu tour mais Sénégal la ñu gis deux cent candidats ak vingt yoo xam ne dañoo taxaw ba ca digg ba ñu xam ne duñu Sénégal yi ñu ñu arrêté woon yi dañu naroon a dem ba ci digg bi àddina lii mu def dañ ci soutenir pour la paix au Sénégal c' est pour la stabilité de ce pays parce que li fi feeñ ak li fi nekk gis ngeen ko jarul répété wax naa ko léegi ci anglais wax ko ci français di leen sant di leen yàlla. yow Samb kenn du yow professeur. présenté ok maa ngi tudd Anna Wade maa ngi dëkk États-Unis léegi ñu gisoo seen mobilisation bi ñu président Macky Sall jaay ma ñu ngi lay tey jii ñu lan nga yëg ak réalisation yi nga xamante ne président Macky Sall def na ko ci dëkk bi. xanaa kontaan kontaan am na kontaan bu baax a baax a baax parce que ñu toog nañu ay 17 ans 20 ans ñoom ñu ci dëkk bi mais jour bi ñu tegee Sénégal dañoo kontaan dañoo kontaan soulagé wu ba ñeneen ñi gisul seen bopp. mais mais ku bëgg sa bopp di sa bopp ku liggéey Sénégal gis sa bopp ku toog nag di xaar état jox la wala ngay xaar leneen ci nit doo na nit ñi liggéey na fas bopp moo xam na nit ñi liggéey ba nga xam ne ku nekk di nga gis sa bopp. tey jii ñu gis président Macky Sall woote dialogue am ñoo xamante ni tey opposition bi am ñi nga xamante ni fas yéene ji lan nga lan leen di wax. fas yéene woon lan. wóoy si dialogue. mais bu ñu wóoyul ci dialogue. mais ñi bëgg dialogue bi dialogue man de sama discours ak li nga xam ne que ni moom laa firi moom laay wax. président président Macky Sall bu ñuy wuyu si wul ci dialogue boobu président na koo defal Sénégal parce que doy na moom doy nañu ci suñu dëkk bi kenn doy ñu ci dul moom ci dëkk parce que euh, élection yoo xam ne ni que ni tey gis nañ fi plus de deux cent candidats loolu mosul am ci benn dëkk mosul am ci benn dëkk mais Senghor. ci boppam bi mu fi nekkoon est-ce que li am na am na Sénégal am Sénégal Abdou Diouf Abdoulaye Wade la même chose kon tey moom du am ni benn évolution ci Sénégal ba noppi nit ñi bëgg a taxaw di wax n'importe quoi loolu tëgguñ ko kenn lañ ko tëgg. ak tension yi nga xamante ne bii nii am na Sénégal jàpp nga ne après dialogue bi Sénégal dina ñëwaat otage bu nekkoon. mais bien sûr Sénégal dina ñëwaat ku ci bëgg ñëw liggéey Sénégal ku bëgg ñëw bokk Sénégal ku bëgg jàmm Sénégal mën nga ñëw andi jàmm Sénégal parce que Sénégal jàmm te ñun xamuñu dara lu dul jàmm nañu moytu nit ñi nga xam ne dañ leen nekkuñu fi dara lu dul di doomu la ñu nekkee ci dëkk bi nekkuñu fi dara lu dul di xelu nit ñi di di di def loo xam ne que ni c'est pas normal teguñu ko fenn ñun nii Macky Sall doxalee actuellement dañoo de lui on est très content ci suñu président bi di am. tey jii sa message lan ngay mooy message bu may lancé xale yi mooy ni que nañu xool li nga xam ne que ni moom la Macky Sall Sénégal def ko def ci nañu arrêté violence bi leen di pousse ñu dem di ko def te xam na ni que ni Sénégal ñun extérieur la ñu nekk mais suñu def fii benn dëkk dàpp y a des enfants yoo xam ne ni que ni ñu ngi États-Unis actuellement ñoo ngi nekk ci métit boo xam ne ni que ni kenn mënu la ko wax actuellement métit boo xam ne ni que nii ñun ñu ngi leen di support ñun ñu ngi leen di jàppale aux États-Unis Astou Sow mii xam na ci dara ndax ñëw na États-Unis bi mu jógee États-Unis ak léegi yàqu xam na gis na xale yi nekk États-Unis dund bi ñuy dund foofu dund bi ñuy kii ñu bëri ñoo xam ne ni fi dañoo ñibbi si dañoo ñaan ku am paas pour ñibbi si Sénégal parce que li am Sénégal États-Unis ba ñu dem wax yaakaaru ko woon ni dañ ko gis États-Unis kon nañu jàpp suñu bopp bu baax a baax amuñu fenn fu ñu ko daal Sénégal nañu dañ koy wàcc suñu bopp bu baax a les communications. Les Sénégalaises, à vous, les Japonais, les Chants, exceptionnelle. au cœur. Aujourd'hui à Dakar la mobilisation est exceptionnelle. Une mobilisation extraordinaire Gaï. Le collectif Macky.